jërëjëf mbokk yi wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte kon niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci yaraax caatu yaraax moo ñu fi woo open press mbokk yi li ma leen wax rek saa su ne làmb ubbi na waaye saa su ne xale yi di gën di wane seen bopp samedi dimanche làmb la waaye di tey caatu yaraax mooy def open press suba mardi beneen activité xew na mercredi làmb day am fële ci arène national muy journée Idaly Gningue bi nga xamante ni mooy deuxième euh, deuxième saison wu tournoi bi nga xamante ni organisé na ko boole ay xale yooyu grand combat bi dox ci diggante Ronaldinho ak xale bi nga xamante ni mooy Konia 2 kon mbokk yi mu lay wan ni làmb mu ngi gën di dox ay jéego amatul samedi amatul du dañuy dugg ci biir wan leen caatu yaraax nan lay waajee digganteem ak ki nga xamante ne mooy Zal Bawol lal lay ñaax lan la koy sànni nañ dugg ci biir aadama kaay waaw waaw kaay bi ci yaraax caatu yaraax a ngi noonu tey woote open press wala laaleeg xale bi nga xamante ni mooy Zal Bawal moom caatu yaraax dugg si na waa yaraax gékk jóg nañ ndeysaan xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb bëre jàng xeex jàng ndam taatu yaraax lii mooy mbër mbër da mbër da am lu muy yëg mbër bu ñuy dugg see la réew mi yëg ayca ànd ak le show ànd ak ay doomi ndeyam ànd ak way séeraas tawarkal la confirmé na jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii mi lii am solo ayca le lii mooy wane ni ñoom ñëpp benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar ndeysaan noonu ndeysaan ma nga noonu sol ci satu boo yaraa ndeysaan Ndoye ngi noonu Sa Ndoye ngi noonu Ousmane Ndoye nuyu nañ la tey ñu ñëw ci open press Thiatou Yarakh ngay doomu Yarakh duñ la laaj lan nga fi wut waaye sa diggante ak Thiatou Yarakh lan la. waaw sama diggante ak Thiatou Yarakh mooy d'abord maa ngi nuyu askanu Yarakh yëpp di nuyu adduna bi yëpp di jégalu waa Yarakh bu baax a baax a baax di wax ni euh, Yarakh ñu fi nekk tey li yàlla dogal mooy xale yi maa seen mag Yarakh bu ñuy wax Moussa Ndoye wax ñu nekk ay rek yoo xam ñu neex a boor tey sama seen di ginnaaw amul ndëj xale yi yëpp mën naa leen dox mën naa leen boot parce que nangul nañ ma xam nañ maay kan man nangul leen liñ nekk ñu nangul ma li ma nekk kon tey ñun doomu yaraax ñun doomu yaraax suñ ñëwee fii lu toll ni caat soxla wala lu toll ni caat am bëgg presse Moussa Ndoye warul def len lu dul ñibbi si pour jàpp si combat bu neen warul sax dama ñibbi si fan nga nekk dama génnoon dama demoon voyage bu ndaw rek waaw parce que man nekkat ci ci affaire waaw. bu mel ni Moussa Ndoye gis naa t-shirt. waaw Yaraax wane. waaw jàpp Yaraax ci kanam. waaw def loo sotti ci ginnaaw bu mel ni moom xale Yaraax yow. say rakk lañ ay frère lañ. yéen a ngi may rakk lañ ñoom ñaar ki day bëri samedi kii bëri dimanche. moo tax ma heure bii waruma ñëw après Tabaski laa waroon ñibbi si mais tax ma ñibbi si mais su may dem ak ñoo xam fi ma jëm parce que dafa am ndox mi ko liggéey xale Yaraax yëpp samay rakk lañ mais dafa rawati ñoom ñaar ñi war a bëri ci samedi kii dimanche ma wax moo tax ma sonn si leen bi waaw di ñaan yàlla yal na ndam yal na yàlla may leen ndam waaw waaw pare naa pour mbër bu ma war a bëree rek pare naa pour yow yëpp ma kenn aw ma ku dama ñëw pour liggéey te lamb jox na ma bopp daanu naa mel noo ma jox loolu bët déglu ma la samay samay samay chef bu ñu pare na loo jox loolu bët waxoon naa ko doomu dégg bi ni ko su ma si combat bi la ñuy xam Moussa Ndoye na ma ordre yi ordre yi ne si dëkk bi su ma ordre yi nekk par nañ pour ànd ak Moussa Ndoye si làmb te Moussa Ndoye da ngay xam ne Moussa Ndoye moo ñëw waaw jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant fu waay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ñu ngi fii tey ci yaraax xale bi ñu fi woo muy caatu yaraax ñëwoon nañ fi diggante mag serpent gis nañ mbooloo mi nga xamante ni saa yu jugee weeraax dañuy jóg topp ko tey nag ñu ñëwaat ci diggante bi nga xamante ni moom ak xale bi nga xamante ni mooy ndaanaan bi ci làmb di Zal Bawal tey ànd naag ay mbokkam ànd naag ay njagañaaleem gis nañ Moussa Ndoye gis nañ au sodd gis nañ yeneen xale yi nga xamante ni ñu ngi ci ginnaawam mu caat euh, ginnaaw loolu dañ lay bàyyi nga nuyu mbokk internet yi wax sa combat bi nan nga koy waaja ak préparation bi nan la durée. waaw euh, salaamaaleykum. ginnaaw bañ sant yàlla julli ci yonent bi ñu ngi gërëm suñu wajur euh, di wax ne soyez bien bienvenus internet yi. di leen dala wax ne dala leen jàmm yàlla xam ne dëkku jàmm la dëkku teraanga la. waaw ginnaaw loolu ñuy gërëm kilifa yi fii nekk yëpp yi nga xam ne ñoo déplacé wu ñëw fekk seen doomi fii des seen déplacement bàyyi waxtu julli yi ndax ñun ñu ngi leen di bu baax a baax di gërëm aussi tamit champion yi nga xam ne ñoo fi teew ku ci mel ne Moussa Ndoye ak Eau Chaude moom mi nga xamee ne day bëri le 11 ñëw ci euh, open press bi maa moom ñu collaboré ci muy suma grand frère di ñaan yàlla may ko ndam tamit euh, di wax ne Moussa Ndoye aussi ñun suñu grand la chaque jour rek li ñu nekkoon sa ginnaaw toujours ñu ngi sa ginnaaw boo décroisé ñu décroisé boo décroisé wul duñ mës a décroisé làmb nii la yaa ñu mën a wan yoon bi ñun ñu dem waaw noon la rek bu jàppal te maanaam bul ñànki ba def loo bëggul te aussi tamit bu la làmb jaay ba nga jël koo xamul chaque jour rek champion nga te champion yi sa kaw dara mun la génn ci VIP yi. ñëwal ci sa diggante yow ak Zal Bawol préparation bi nan la demee ñaata séance nga doon entraîné par jour ak Zal préparation la wala préparation yi benn. waaw man ni ma doon làmb du ko dindi xanaa su ko yokkul du ko waajee. parce que Zal Baol mbër la xamoo ñu man li ma mën ci rey sama bopp tamit dama koy def école la nekk ma nekk ci école bu ñu ñëwee dañuy tari rek ki gën a mokkal mooy gañe te ci kàttanu yàlla gëm naa li nekk yaraax nekk rëbës waaw ndax rëbës mosu kenn xamee ko dëkk du làmb rëbës ban mbër moo fa juddoo ah, kay loolu mais boo nee te fasu yaraax ne mbër bokkul sax kon da ngaa bëgg du mbër non man damaa am maamu mbër Zal Baol kenn xamul lu ko dugal ci làmb te le dis daal da gëm ni mën naa toog sa dënd bi moo tax mu jël. li ma waxoon ci open press laa koy waxaat. Hmm. nee naa ko ñun ay ndaw lañ te dañoo yaroo ci tefes gi. Hmm. Zal dama koy tegal position booy saaraan bu daaree rek ma xëcc ko te ndaw mooy xëcc ndaw bu daar. waaw mooy comme li ma waxaatoon rek. du yabal mbër ba ma koy teeral place kon day rafet. déedéet. Youssou dama koy teeral ci maire ñu koy cax ko. loolu da xaw ma ko lu yoos. waaw yoos mooy jën bu màggagul jën bi nga xamee ne day lappi lappi ci pere bi rek. waaw daa mel ni ni ngay waxee ni da ngaa xeeb daal bawol de. waaw gëm sama bopp rek nekk si ay ginnaaw champion yoo xamee ne mu mosuñu wane tapet wala ragal ci làmb man xam nga ma bu baax xam nga ne man du ma reculer ci làmb damay ñëw tari li ma liggéey. li nga liggéey mën nga koo tari ci kanamu Zal Baol. daaw 4 secondes laa daan serpent. serpent ak Zal duñu benn. waaw moo tax moom boo moytuwul sax mooy gën a gaaw. Hmm. ci xeex wala ci bëri. moom munu xeex bu xeexee dinaa ko dóor ba muy gox ay yaboy comme li ma waxoon keroog. mën ngaa dañ koy ñaanal wér bés bi ñoo moom ci suñu borom mu ñëw jox ñu suñu drapeau ñu ñibbi. nee lamb ji li nga ci yaakaar xam nga ko mystique nga yaakaar parce que jouru lamb yaa ngi doon daw gauche à droite ko rek. wër boobu nga ko wër bu jouru lamb ja bu arbitre ne prib dina teg lu métti. waa yàlla na ma mystique may ndam bu dee mystique laa yaakaar. lamb loo yaakaar lu ne danga koy def. amul mbër buy def làmb te doo dem misik Zal Baol na xam li muy def gëm boppam waxu tapet weesuwul nga ñëw fekk ma ñu def signé contrat nga naan baal naan doom Zal ma ko ba ma naan ba ma naan doom. ah est-ce que nekkul daa gis ni état bi état wu doom waaw peut-être loolu la ko jaaxal li ma lay wax daal lenn la le dix cinq jours moo ci des. li naan doom loo ko ton waaw xam nga tey man tànk yoroma micro wala ñu jàkkaarloo journaliste yi jox ñu micro du ma bëgg di la tontu ci biir géew du ma bëgg di la tontu. Zal ba muy ba muy saaga di insulté ci biir géew gi dama ne ko jërëjëf romb ko parce que su ma ko fa tontoo tamit kenn amul seere foofu moo tax ma dem ba ko waaw. léegi nag waajaay bi euh, saa yi xam nañ ni bis bi la ci dal li ci des bareetul lan ngay woote ak ñan ngay woo ak wàllu wàccaay gi xam naa ne ñu ngi ci ak ndaw gi actuellement. waa li ñu waroon def yëpp def nañ ko. li ñu waroon def yëpp def nañ ko. lamb nag dara mënul mate tey boo gisoon beneen jili bu bees mu ne la génnal nangam nangam. ay xale lañ li ñu doole li suñu doole toll def nañ loolu te ci kàttanu suñu borom bu ñu ñëwee dinañu wane li ñu liggéey man moom du ma ko reculer Zal Baol mënu ma ko reculer man waaw. wàllu mobilisation foo ci toll ndax xam nga ne promoteur bi jël xaalis fay la fay Zal soxla na mobilisation waa Yaraax fan lañ ci toll ak autorité yi nga xamante ne ñoo dëkk Yaraax. waaw mobilisation yi moom boo ñëwee national nationale le 26 passé boo xoolee xam ne Yaraax néewul kattan. ba ñëwee yaraax moo fees dell ci stade bi. kon promoteur amul lu muy jàq ci combat caatu yaraax wala beneen combat. parce que Moussa Ndoye moom demee keroog daa duy stade bi. kon man du ma tijji côté boobu. damay mobiliser stade. incha allahu Mar dañ koy mobiliser feesal ko dell ak ñëw bëri daan. samedi ak ndax duñ fàtte combat loo sóodu le 11 la mu ngi ni taxaw buñ paree presse bi mën ko jox. nga ni 15 ñuy teg. déet Moussa 15 car la ñuy teg. xanaa loolu la fanaan. samedi 15 car la teg fii si yaraax pare nañ pare nañ mystiquement moralement mentalement financièrement. dañ ñi lay jàppale. waaw ginnaaw loolu. Mbassa Mbassa. waaw ginnaaw loolu. damay def appel bu gàtt rek appel bu gàtt même pas cinq personnes. bi xaju waaw équipe bi maa ngi sant suñu coach yi. waaw ginnaaw loolu maanaam ñu profité rek di sant suñu waa équipe ah, ku ci mel ni Père Ndiaga ah, suñu coach Ibrahima Diouf Mbassa Sonar ak Ñaabali ak mbër nga xam ne ñoo nekk askan bu yaraax ak mbër yi nekk Ablaye Dieng bu yaraax. Euh, après maa ngi sant euh, monsieur le maire Babacar Mbengue mi borom dëkk bi ginaaw loolu maa ngi sant aussi tamit maire Kër Massar jàppale na ma Moustapha Mbengue di sant euh, Ismaïla Diallo ginaaw loolu may sant Diène njaay bu baax a baax ah, di gërëm aussi mami mami mami Guèye Souleymane Soumaré fàttewu ma ko suñu DG DG ONFP maa ngi koy woo ci combat bi Boiro Abdourahmane Camara aussi tamit maa ngi koy woo ci combat bi fans club bi aussi tamit di leen wax ne jàpp rek. Matar Diaw su ma nijaay aussi tamit maa ngi koy euh, woo bu baax ci combat bi ginnaaw loolu maa ngi euh, gërëm Kamu ak Cheikh Ndaw rakam Kër Massar Alaaji Paté fàttewu ma leen waa 100 pour cent Alaaji Paté mobilisé wu nañ jóge Alaaji Paté indi ay car ñëw ci open press bi di leen gërëm bu baax waa Alaaji Paté di wax ne seen doom aussi tamit euh, mu ngi noonu jàppale leen ko di wax ne jeune pêcheur yëpp maa ngi leen di gërëm aussi tamit jeune pêcheur yëpp capitaine u gaal yi tamit bàyyiwuma kenn du mel ne ñoom Zeus ñoom Sadex Ngom ñoom Lay Fall bàyyiwuma kenn kenn kenn teg naa maam nuyoo bi seen loxo mbay seen aussi tamit supporters yi nga xamee ne ñoo féete ci wàllu jeune pêcheur yëpp bàyyi naa ko ci loxoom di wax ne zone 7A ak zone 7C maa ngi woo ñëpp sama combat. ginnaaw loolu maa ngi woo waa Waalo Bawal Ndukumaan Touba Thiaroy Yëmbal euh, Malika Dalifor aussi Darou Salaam maanaam Maris ba Cité Mairie bàyyiwuma kenn. di wax ne maa ngi gërëm champion yi fi teew ci mel ñoom Sawa yàlla na ko ndamam bi jëkk euh, ñoom Moussa Thiam waa Darou waa Dalifor bàyyiwuma kenn. waa Alaaji Paate ñu ci mel ne ñoom Adidas ñoom euh, Boy Kaza ñoom ñëpp teew nañ ñoom Ibrahima Diko fàttewuma leen aussi. rendez-vous kañ. waaw. rendez-vous kañ. waaw euh, sama ménagère bëgg Fall aussi maa ngi koy gërëm laa rendez-vous le 10. maanaam ñi déplacé wu ñëpp ñoom Béjjén Ndiaye ñee toog ñëpp maa leen di gërëm bu baax di gërëm aussi sama maire koñ yi ñoom taxaw nañ ci bu baax waa ndaw Rabène sama tante yi gërëm naa leen ñoom man ngoom euh, ak waykat yi séeréer yi toog fële sant naa leen géwél bi muy Ali Samb ñu koy wax ne ñu koy gërëm Baye Jili borom presse bi ak ñoom Lamine Idi bàyyiwuma kenn gars yëpp ñoom Xaadim Anta Omar Saliou bàyyiwuma kenn Baba Ali jël leen ko waaw di wax ne Seydina Niang dafa woote lendemain tabaski waaye yaraax yëpp nañ ko teewale incha allah ginnaaw loolu ah Moussa Ndoye aussi ñoo ngi koy gërëm gis nañ ko champion bi lu soo yàlla na ko yàlla may ndam le 11 incha allah ci kàttanu yàlla jaajëf gërëm naa